asalaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokki amateur ñuy suivre ci wasaare lamb cant ak ngërëm ñel na leen tey ñu ngi leen di nuyoo fii ci stadium Iba Mar Diop. bésu tey bi nag yem boog le 2 janvier ci at bu bees bii di 2022 Diaks Wrestling production moom moo ñu fi dajale comme d'habitude ci maninam lutte avec euh, lutte sans frappe lutte sans frappe ci la leen dajale mu tey moom Diaks Wrestling production. comme ni mu koy defee saa su nekk ñu tàmm ci moom ay mise yu mag nga xam ne mën nañ la lutte simple bi actuellement fi mu nekk bu ko fa yóbbu tiit moo ko fa maintenir tey nag ci beneen journée lañu nekk journée bu mag ci wàllu làmb simple comme niñ koy waxee wala ci lutte sans frappe moo ngi noonu moo ñu féete di euh, droite moom Ibou Ndiaye Obali tibb na suuf dox ci kaw adversaire am napp ko jàpp ko loolu la bëgg waaye xale bi curuxu curuxu lay def ñu ngay lewto Ibou Ndiaye Obali attention jëme ko jëli Ibou Ndiaye Obali ah waaw da koy daan da koy daan jaay na ko doole daan ko c'est normal daf lay jaay doole daan la fële Boy Faye moo fa nekk Boy Faye ak kan la comme spectacle wala lan la ñuy am comme surprise en mu ngi noonu Ibou Ndiaye Obali ak ordina ak Libidor ñoom tamit ñu nga ca digg géew ba xaar arbitre sifflé lan moo am ku daanu booy faye daanu wala wala arbitre daa woote am Ibou Ndiaye Obali lan la ñuy am fii aussi comme spectacle dañuy am confirmation wala dañuy am revanche li mu door Obali lii moo nekkoon final 5 millions yi la fois passé bi ñu fi Jack Wrestling production woowee tey ñu ngi am huitième de finale moo tax lutte simple neex adversité bi day bari compétition bi day bari ci mbër yi spectacle day am lutte pure et dure day am donc bu ñuy wax làmb daal vraiment lutte simple moo tax xam nga quatre grands combats yi nga am ci diggu géew bi boo ko soxla woon ci lutte avec frappe da nga génne ay millions yu bari caaka fay nga bëreloo ko ci benn journée bëreloo Libidor bu Kayaar Ibou Ndiaye obali ci benn journée bëreloo booy Faye dóor dóoraat ci benn journée bëreloo ordinateur yàlla ko bale ci benn journée bëreloo Ada Dieng ñu gën koo xam ci Ada Boy Bawol ci benn journée loolu loolu loolu loolu yaakaaruma ne dana mos a am à part lutte simple fils de Batlen aussi pareil ndeysaan nga am ca wet ga Gandia Fama buy def ambiance am ndeysaan Ibou mu ngi koy mu ngi gaawantu mbaa du ngeen xeex mbaa du xeex li may gis du ay coup Boy Faye moom jàpp na adversaire lan mooy xew Boy Faye daan na la lan moo xew arbitre nee na bërewaat Ibou Ndiaye Obeuly Libidor Caaka Faye ba léegi ci géew bi dara xewagul ordinateur ba léegi ci géew bi dara xewagul Fils de Batlene ñëw fekk si leen moom it ak adversaire mu ngi noonu Ibou Ndiaye au bële ngay reculer di defaraat téere ya ngeen gis ca ginnaawam ordinateur ak adversaire am Ada Boy aussi qui se prépare pour entrer en lice pour l'instant nous avons cinq grands combats dans l'enceinte Ibou Ndiaye Obali et Libidor de Kayar sont en de disputer leur combat. Un combat revanche. Attention. Ta, eh, eh, eh, voilà li Ousin Diop di wax vite fait bien fait. man maa ngi ci revanche bi diggante Ibou Ndiaye Obali ak ki nga xamante ne nii mooy Libidor bu Kayar en même temps Caaka Faye ngi ci diggi géew bi a ngi ci diggi géew bi booy Faye mu ngi ci diggi géew bi Ada booy Bawol mu ngi préparé wu pour ñëw moom aussi ci diggi géew bi huitième de finale yu am solo yu neex moom lañ gis fii ci stadium Iba Mar Diop ci journée Diaks Wrestling Production ki nga xam ne li simple léegi kilifa la ci bu ñu waxee kilifa mooy sañ na cee def sañ na fee ndax gis nañ ay initiative yi nga xam ne da koy faral di jël ci làmb la fois passée jëloon na fi initiative boo xam ne mbër yi niñ ko jëlee bokkul ak moom nam ko gise c'était pour bien faire waaye mbëri dañoo jàppoon ne loolu lu yàq làmb na na xajut ci làmb ndakaaru ñetti drapo la fi defoon di raw gàddu di poids léger di poids lourd keroog li indi woon coow li mooy dañ ne woon catégorie poids lourd 64 litres la waroon a nekk naa les norme waaye keroog la bind woon matul 64 te pourtant. amoon na ay lutteurs yu bare bare bare bari yu nekk ci biir làmb ji bëggoon a bindu te bindu wunu li nu mel moo waraloon ñoom caaka fay ñoom ngañ seen ñoom libidoor bu kayaar ñoom ñëpp di ñaxtu te dañ leen a war a bàyyi ñu bëre ci la jax ak le CNG dellu siwaat ci seen décision ñu daal di leen wax ñu dem ngemb keroog ki nga xam ne mooy libidoor moo jëloon final bi te pourtant bokkoon na ci ñi ñu res bokkoon na ci rescapé yi ñi nga xamante ne nii ñoom la ñu génne woon ci biti Boy fay lii lan la Boy fay lii lan la Boy Faye lii lan la ah Boy fay xale bi fi mu la yegg sori na waaye li ñuy wax rek rasu ku ko génne ci làmb làmb manqué rasu ku ko jëlee ci làmb làmb manqué. rasu ko jëlee ci làmb laa metti foofu la foofu fam la yegg doo génn doo ci génn booy da daanu booy fay daan na ko daan na ko ba xam moom it lan la ñuy jox làmbam en général du yàgg daf lay patam patamee wala nga patam patamee ko daf lay wéyale wala nga wéyale ko mu ngi noonu aada booy bawol attention sol nañ ko naax fu ñu moom génn nañ ko saaku ya da ngay dellu ak avertissement le temps que ñu dem ci Libidor bu Kayar ak ak Obali ñu ngi noonu seen combat bi metti na ñu ngay dóorante de ñu ngay dóorante mbëri souvent boo leen daanee balaa nga leen a daanaat di nga wax lu set à moins que nga mën leen ëpp leen doole deux fois mën a ñëw pamti pamti leen def leen li nga leen bëgg a def fii doole c'est autre chose mën nañoo gis masse bu yéeme bu wute mais pour nga juger ci côté doole loolu beneen affaire la mën nga gis ñaari mbër jàpp ne diw moo ëpp yaram jàpp na diw moo gën a diis waaye côté doole attention Ada Boy Bawol côté doole munoo caa xam dara tànk ñaari mbëri jàppante wuñ ba ku ne joué sa morom. Ada Boy Baol foo jëm ndeysaan tey dimanche 2 at bu bees premier gala de lutte sans ci at bu bees bi démb la woon premier gala de lutte avec frappe ci at bu bees bi. diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier combat woon ci biir combat yi bés la woon ci bés yi ndeysaan Bombardier ñëw def confirmation wanewaat boppam daal ñuy jàngalaat lu bëree baree bari ci làmb mbokk yi loolu dana tax ñu xam ne lamb du football ba ko am 45 ans ñu bëgg laa minimiser jàpp ne màgget nga làmb dépassé na foofu. lamb rapport de force la waaye tamit expérience da ci joué Ada Boy Baol génn nañ na ñaari yoon sortie délibérée la sortie délibérée nag dañ koy sanctionné ak avertissement vraiment jaaxal nañu bëri démb bi ñu xoolee diggante Balla Gaye ak Bombardier ci sortie délibérée bi nga xam ne nii am na Balla génnal boppam ganaaw ba ko Bombardier dooree ku ba ñu daal di roofoo affaire xaw a metti mu rekkili génn saaku yi boobu bu jotoon avertissement dafa naroon a nekk cinquième avertissement am lamb jeex mais l'arbitre a préféré jouer li nga xamante nii. mooy jurisprudence am convoquer la jurisprudence daal di àtte ci xel eh lii lan la nii eh Libidor siif na ko eh, eh ah, ñorut mboot ba ñorut bi dafa siffler Libidor xool ko gis ne saa waay wàccul ci ay tànkam mu daal di koy siif na coppet tànk ba waaye Ibi Ndiaye Obali dafa liir action. daal koy bàyyeeg tànk ba pare jàpp ba mu dëgër mu déclenché mboot mbootu tàqalikoo ko defee mu xaw ko sori tuuti mais fa mu jàpp ca devantiru ngemb ba baax na ndeysaan xoolal fee xoolal ba fee aada bay bawol yëkkati nañ la dangay ngay mboot wala looy def da ngay génn saaku yi encore eh, ça La troisième sortie délibérée d'Ada Boy Bawol, sanctionnée par trois avertissements. Et c'est fini, c'est terminé. Ada Boy Bawol éliminé par décision arbitrale, c'est terminé. Donc ñu dellu si waat ci diggante Libidor bu Kayar ak Ibou Ndiaye Obali kan moo daan ah Libidor encore élimine Ibou Ndiaye Obali par avertissement comme la fois passée en finale non non non la fois passée da daanoon jël Khadija Fama la finaliste drapeau chef de l'État édition 2021 remporté par équipe àndoon ak li nga xam ne moom mooy équipe nationale euh, euh, fu ñu jëm di lan la nii Khadija Fama rey nañ la ba nga dee arbitre sifflé waat na diggante Gandia Fama mi defoon erreur léegi ba adversaire am am avantage ci kawam mais heureusement heureusement ba monsieur l'arbitre dafa nekkoon à sa faveur loolu moo waral mu woote waat lamb ji ñu war a bëre waat mais damay ragal ne bu jël la amee ci côté Gandia Fama recours dana am ndeysaan combat bu nar bëri coowaay Abou Assef foofu ba adversaire ba jaaxaat ban mbër la ñuy foofu daan nañ la ngooli nañ la ba nga sonn ñu daan la Tony lan lañ lay def Tony attention Tony mboot na ko wër na ko ndomb daan na ko ndeysaan il est doué mën a bëre nga maye bari na est-ce di nga ca génn la nga maye bari na est di nga ci génn la nga maye bari na doo ci génn daan nañ la lii la nii dañ lay daan lay daan dañ ah, doo ci génn de doo la nii la nii. ñeme woo cee génn de arbitre kii moom bu dof dof loo bam rëcc nañ dem ci table technique bi rek ñu jox ko licence am ba pare amaan ko suspendre ko teg ci ba dañ ko jekku def ko lii yëpp te taanoo ko dañuy wut benn fooy rek bindal la ci demal jàngiwaat bëre combat Gandia Fama bi la ñuy gis noonu ak combat Ngor Ñaax bi quart de finale pour Ngor Ñaax quart de finale pour Gandia Fama Ngor foo jëm Ngor génne adversaire am c'est terminé voilà jeex ndeysaan ambiance baa ngi noonu ambiance su Momo Moussa Pouye ndeysaan Issa Pouye a ngi noonu Asef ñu gis ay combat metti lool ci quart de finale bi ñu gis Tony Junior combat ci quart de finale bi taxu ko metti gagné adversaire am ci lu yomb ci lu gaaw attention abu Asef eh Abou Asef daan na Tony Junior Abou Asef daan na Tony Junior ci maninam Abou Assef daan na Tony Senior lii la daane adversaire am quart de finale. beneen ngi noonu beneen quart de finale a ngi noonu j'espère beneen quart ak Tony loolu quart de finale la Abou Assef daan deuxième quart de finale baa ngi noonu. mu des troisième euh, quart de finale bi wala quatrième quart de finale bi Gandia Fama la ak kan troisième quart de finale baa ngi noonu daan nañ la c'est terminé. troisième quart de finale bi jeex na mu des troisième bi ak quatrième bi. troisième quart de finale ak quatrième quatrième quart de finale bàyyi noonu Gandia Fama ginnaaw bi mu jógee ci combat bu metti moom it ana lan moo koy xaar ci quart de finale boobu ba xam ndax il sera vainqueur ou pas des na ñaari quart de finale yooyu moo des après ñu daw dugg ci quart de finale lourd pour l'instant maa ngi gis ngañ Sène maa ngi gis Libidor maa ngi gis Fils de Batlen maa ngi gis Boy Faye ñooñu ay luur lañu waaw il paraît ka quatre yooyu ñoo des Boy fay Libidor ngañ seen wala ordinateur dafa mel ni ordinateur la ordinateur la yàlla kobale ngañ seen il paraît que éliminé nañu ko waaw bëre wu leen non luur bi du quart de finale huitième de finale la ñu toll caaka faye nga nële di dogali Fils de Batlé na ngi nële di dogali moom booy faye nga nële ordinateur nga nële waaw. te des na Libidor bu Kayar a nga noonu des na jeexagul. ndeysaan Kalde Firaani yàgg nañu yàgg na yàgg na yàgg na la waykat ba doon wax rek lii bu doon làmb jigéen sa ni ba ba jeex na ndeysaan gànja faam rey nañ la ba nga dee loo bëgg gaa yi nanguwuñu de gaa yi nanguwuñu de ndeysaan gaa yi nanguwuñu Gandia Fama amateur yëpp a ngi réclamer nee nañ lañ ndam amul l'arbitre c'est le maître du terrain jox na joxe na verdict Gandia bañ na day defi recours recours foofu jeex na ok jeex na. arbitre woote waat na euh, dëgg la Gandia Fama daanuwul Gandia Fama daanuwul en tout cas man image yi ma yor nii li ma gis mooy Gandia Fama moo tax arbitre bi woowaat na leen woowaat na leen ndeysaan. woowaat na leen pour ñu bëreewaat ko cey bii quart de finale cey bii quart de finale gànja jël na tànk ba wala non tànk gànja la jël tànk gànja la ñu jël tànk gànja la ñu jël ndeysaan ndeysaan ndeysaan tànk gànja la ñu jël tànk gànja la ñu jël tànk gànja faama moom lañu ñu jël bàyyiwaat nañ ko hee quel combat ordinateur Thiaka Faye quel combat Gandia Fama fii laa leen di bàyyi fii laa leen di bàyyi damay migrer damay dem ca combat ba combat de choc ba fa jëm hey ay bii combat huitième de finale entre le roi de la jungle rey nañ la rey nañ la y rien Gandia tey doxul de. ganja tey doxul de ganja tey doxul de mais ça c'est quoi c'est quoi ça hey beneen bës a ngi noonu beneen combat ngi noonu diggante Caaka fay ak ordinateur hey lamba ngi noonu Caaka fay ordinateur a ngi noonu ci biir géew bi waaye yéen est-ce que duma fi bàyyi ñoom ganja faamate dem ci ñoom Caaka fay Fils de Batlene a ngi noonu di dugg Fils de Batlene kan nga am Boy Faye a ngi noonu booy Faye kan nga am liiru Diane a ngi déggal ma naan Lirou Diane Ngagne Sène a ngi noonu Ngagne Sène kan nga am Libidor a ngi noonu Libidor kan nga am voilà c'est Gandia Fama qui gagne par avertissement

ndeysaan ngañ seen libidoor ngañ seen libidoor ndeysaan caaka fay ordinateur est-ce que ordi di nga ci génn booy fay moom daan na de bat leen fële est-ce que ordi di nga ci génn je pense pas ordinateur fi la yegg dafa sori vraiment jàmbaar nga mais yaakaaruma nga génn ci ponkal mu toll ni caaka fay ku mu féete fii da ngay mujjee sonn rek toog dangay ngay mujjee sonn rek toog ndeysaan oh, booy Faye daan na Fils de Batlen fële ca wàlla maa ngi jégalu mbokk internet yi daf ma rëc boobu maa ngi toppoon Libidor ak ki nga xamante ne nii mooy Ngagne Sène hey un lutteur hors moom Ngagne Sène deux yi gis nañ li nga xamante ne nii mu ngi koy def ci làmb ji félicitations et mention spéciale moom ak rajaxe fekk si nañ poids lourd yi ñëw nañ bokk nañ boole nañu seen bopp ba suñu tasee ak luur danañ bëreeg moom ndeysaan caaga oh, fay fa nga yegg ordinateur sorina na ordinateur da ngay épuisé doog a daanu daan na ko caaga fay daan na ko caaga fay daan na ko Ngagne Sène ordinateur astafurla Ngagne Sène Libidor Ngagne Sène Libidor Ngagne Sène Libidor combat bangok combat bangok Ngagne Sène ak Libidor de finale poids lourd Boy Faye de Batlen Siki Thiaka Faye élimine ordinateur le roi le, le, le, le le dit en wolof buuru àll bi Ngagne Sène Elibidor ñoom ñaar ñoo nekk ci digg géew bi noonu nekk en liis di jàkkaarloo ko jàmmaarloo attention lan moo xew Libidor da ko bëgg a jaay na ko xelum mag war na ko ndomba da koy daan daf koy daan eh, est-ce que dina rëcc ngañ boo rëccee eh ngañ rëcc na Libidor ngañ rëcc na Libidor Libidor koo bëgg a jaar ko jaaroon eh. ndeysaan ngañ seen mi ngañ seen n'a pas encore dit son dernier mot laa ilaaha illallaah ngañ seen pareegul Ngagne Sène pareegul de hey cey lii mbaa jàmm la. Ngagne ñoo nekk noonu di leen fàttali ne Boy Faye dafa éliminer fii la bat leen loolu moo am fii sànq Caaka Faye éliminer ordinateur. ndeysaan léegi nag quart de finale yaa des Boy Faye kan lay am en tout cas Boy Faye a fi des ak Caaka Faye ñoom ñaar ñoo fi des ak ñaar ñi war a génn fii ndeysaan kële may gis damaa ñemee gut a wax ñemewu maa wax ne Toubacouta la parce que Toubacouta il paraît que dañu ko suspendre waaw Toubacouta dañu ko suspendre de ñaar ñee may gis xawma leen de lan moo xew foofu avertissement pour Libidor avertissement pour ngañ seen <laughs> ay libi li nga am léegi balaa nga ko amaat xale ba jël na tànku Libidor ba Ngagne seen jël na tànku Libidor ba jël nga tànku Libidor ba lu Libidor mën Ngagne Sène jël na tànku Libidor ba lu Libidor mën Ngagne Sène jël nga tànku Libidor ba lu Libidor mën waaw wow da nga koy jël da nga koy bàyyiwaat foo jëm ak moom mboot na la Libidor Ngagne Sène daan na la <laughs> ay waay lii mbaa jàmm la ay bii xale fan la jëm ay bii xale fan la jëm Quel spectacle Quel spectacle C'est la lutte, c'est ça le sport. Soit tu gagnes ou tu perds. loolu mooy lamb demi-finale raw gàddu baa ngi noonu ngóor ñaax kan nga am xamaguma la Moussa Faye kan nga am xamaguma la Moussa Faye en demi-finale raw gàddu Ngor ñaax en demi-finale raw gàddu man nag li ma gis mooy Ngor ñaax ak Moussa Faye boobu de laa gis pour final waaw ragaluma daanu nag moo tax ma wax ko ragaluma daanu de moo tax ma wax ko parce que gis naa Moussa Faye parcours zéro fot bi nga xam ne def na ko malgre ñoom ñëpp parcours zéro faute lañ def xoolal boobu combat quart de finale baa ngi noonu dernier quart de ba ci poids lourd baa ngi noonu dalay jàpp. da lay ëpp da ëñ wala mu mu kii la mu sol la falaa leen di bàyyi delluwaat ci diggante Moussa Faye ak adversaire am xool foofu tuuti bu fekkee mën naa fa am site baax na bu ma fa amul sit damay obligé migré waat dem ca diggante ngóor ñaax ak adversaire am Moussa Faye moo ngemboo ngemb lu ñuul li ñu ginnaaw wala won ñu càmmoñ ngóor ñaax moom léegi ñu dem ci moom ay Moussa fay moo ñu woon ginnaaw noonu mooy defaraat ngemb bi noonu tey dara du yoon buñ amul foofu dara dañuy daw dem ca ngoor ñaax parce que bëgguñu dara lu ñu raw ndeysaan Moussa Faye loo bëgg Moussa Faye lan nga bëgg Ngor Ñaax loo bëgg. ay xale yu jar a encouragé lañu Ngor ak Moussa Faye niveau bi ñu tolloon ba léegi ñu ngi ci même niveau boobu lii lan la nii lii lan la nii quart de finale lour bi ñu ngi noonu bootante mbootante épreuve de force dara du xew. ñu delluwaat ci diggante Ngor Ñaax ak adversaire am en tout cas lii leer dina leer arbitre jox na leen avertissement falaa leen di bàyyi ñoom it dem ca Moussa Faye tey diplex laa damay taxawaal nu ma nu neexe ci ñaari demi-finale yi ñaari demi-finale raw gàddu yi diggante Ngor Ñaax ak adversaire am adversaire bi ngeen boo ngeen lu verte laa lion ndeysaan bu seetaanee lii dina ree ba bëgg a dee dina mën a jàngil nga bañ Moussa Faye lan lañ lay def ca xabal nañ la mu moy xool leen ndeysaan nii laay def ndeysaan àgg nañ la fu sori Moussa Moussa Faye àgg nañ la fu sori mais dañ na rëcc na heureusement pour lui. C'est ça la lutte sénégalaise mais li ngeen seetaan démb di ko faral di seetaan ci arène national hey mbokk yi loolu du loolu du làmb loolu c'est du business la lutte pure et dure mu ngi nii lii mooy lamb bu ñuy wax làmb lii moo tax da ngay gis fii bëre ba naaw gis ambiance ndeysaan Moussa fay tey am nga client boo di yëkkale lu xew fii lu xew fii dara amagul dara amagul fii noonu laay jógewaat léegi rek delluwaat ca diggante ngóor ñaax ak adversaire am moom it hey Moussa Faye sukk na benn bëtu oomam ca suuf jàpp adversaire am ca kaw loolu fàq rek moo ciy des. xaaral ma delluwaat foofu xool ana lan moo fay xew jogaat nañu jogaat nañu tey de maa ngi mel ni ku yor sama cinq fu ma neex dem des fois ma jóge ci combat bi jàll ci bële mboot na la mboot na la Moussa Faye Moussa Faye Moussa moo am avantage pour l'instant da koy wër ca ginnaaw lay dem. loolu la bëgg mais xale ba fa mu lonka baax da lay wër ndomb a ñàkk nga xale bi ñàkk nga Moussa fay bu amee loolu ci yow daf lay daan daf lay daan dafa miin compétition daf lay daan daf lay daan daf lay daan ba toog sa kaw arbitre doo jóge fii ngir yàlla yàlla fay la daan na la ndeysaan Ngor ñaax boo daane yaag Moussa Faye yéenay daje final raw gàddu muy final bu neex ñaari xale yu xamante yu miinante ndax nag yàgg nañoo représenté la région de Fatick drapeau chef de l'État Moussa Faye récemment ñu ngi koy gis foofee nga xam ne mooy Kaolack ndeysaan mu def fa liggéey bu am solo nekk koo xamante ne ni en équipe nationale. xam nañ ko ñam nañ loxoom Ngor Niakh équipe nationale xam nañ ko ñam nañ loxoom donc ñaari xale lañ yoo xam ne niveau bi ñu tolloon ba léegi ñu ngi fay maintenir seen bopp te loolu fullaak fayda moo koy def loolu liggéey moo koy def loolu xam ne sportif nga di def yëfu sportif moo koy maye Ngor Niakh a ngi noonu bu ne bu doon bu doon pari foot la dama naan Ngor Niakh moo ma dese bu leen ma xas nag du ma de. simple man la reporter yi Baye Djili la ak Ousseyn joob tey dama leen gisul moo tax ma ne xaaral ma wax comme wax ji moom du jaay gratuit la xaar ma wax looloo ma ci dugal loolu rek moo ma ci dugal lan moo xew avertissement pour qui c'est fini ndeysaan Ngor Niakh gagné na par avertissement comme ni mu woon en demi en quart de finale noonu la gagné waatee en demi moog Moussa Faye ñooy dem en finale raw gàddu ndeysaan. Euh, Balla Gaye Yékini ba léegi mu ngi jàpp bàyyiwut bu Balla amee combat da ciy dugal alalam lu ne da ko ciy def ci loo xam ne Balla yëgul muy génn ay sarax di def ay ñaan rien que Balla am ndam ndeysaan loolu soppe. soppe bu dëggu dëggal moo koy def waaye mënul ñàkk loolu mënul ñàkk taalibe Sëriñ Babacar Sy la lu baax la xam ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jaajëfal ndeysaan yéen a ngi ci seen gala sans frappe fii ci stadium Iba Mar ci làmb ji nga xam ne Jax Wrestling production moo ñu fi ñu toll nag ci demi-finale lese jàll nañ ci demi-finale aw gàddu yi ba Ngor Ñaax ak Moussa Faye ñoo dem finale instant bii ñu ngi en demi-finale euh, laissé Abou moo nekk noonu adversaire am bi nag dama kaa xamagul fële ngóor euh, kii moo fa ne Gandia Fama moo fa nekk. Gandia Fama arbitre bi dafa léegi jox leen ay avertissement ne leen bëre leen da ngeen di bëre rek wala ngeen bàyyi lool la arbitre bi wax bëre leen rek da ngeen di bëre wala ngeen bàyyi demi-finale lourd il paraît demi-finale lourd il paraît Gandia Fama xanaa sa combat bii du xejam ñaari fi jaar yëpp a xejam daan nañ la daan nañ la eh, da doon boot Gandia Fama far mu wéyale ko Gandia Fama en final laissé ndeysaan mu ngi dem ci diggante Caaka Fay ak Ngañ Seen fa laa jëm ginnaaw bi ma jógee ci diggante Boy Fay ak adversaire am dara amagul ndeysaan waaw waaw daan na ko loolu de laa gisoon francement loolu laa gisoon final boobu laa gisoon abu Assef Gandia Fama en finale poids léger c'est normal Boy Faye a ngi noonu eh, Boy Faye yab nga client yab nga client de Boy Faye waaye sa victoire laa gis final bi yaag caaka fay laa gis daan nañ la hee booy fay këpp na sama carte ga lii bu doon pari foot booy fay lor na ma bu doon pari foot booy fay lor na ma de bu doon pari de toroxal na ma bu ngeen amaatee avertissement doodu des tous tous <laughs> yu bàll gi làmb neex <laughs> lamb dafa neex billahi kenn xamul lan la ngañ ngañ caaka jël na la ngañ caaka jël na la ngañ caaka jël na la ay waay luur bi de mboolem la ma ci waxoon dara du ci dëgg waaw booy fay laa ne woon mooy final ak caaka fay dara amu ci dara amu ci dara dara daara dara xam nga ñii bu lii bu doon ay waay heureusement ba lamb amut pari foot lamb bu amoon pari foot ba nii caaga toroxal nga ma ay caaga ay caaga ay caaga njoma jee da nga pari foot ndeysaan final baa ngi noonu final poids les euh, raw gàddu baa ngi noonu final raw gàddu xamante nañ ndeysaan yàgg na noo bokk regroupement kii ngeen di gis mu féete à droite mooy soixante-seize kilo bu équipe nationale de lutte du Sénégal muy ngoor ñaax keneen kii ngeen di gis mooy soixante-six kilos bu équipe nationale bu Sénégal muy Moussa Faye Moussa fay ci drapeau chef de l'État mu ngi doon représenté Kaolack goor ñaax ci drapeau chef de l'État moom aussi mu ngi doon représenté Fatick Moussa Faye 66 kilos équipe nationale Ngor Niakh 76 kilos équipe nationale Sénégal voilà quelle belle finale quelle belle finale xamante nañ bëre bu neex lañ war a gis. bëre bu neex lañ war a gis tey final bi logique la beneen final léger bi Anzu Khady Ndour ñu gën ko xam ci Gandia Fama ak Abdourahmane abu Assef ndeysaan quelle belle finale encore arbitre sifflé na Moussa Faye Ngor Ñaax à ñoom ñaar ñëpp ngemboo ngemb lu ñuul Moussa Faye Ngor Ñaax ngemboo ngemb lu ñuul ñooy final catégorie raw gàddu bi première catégorie ndeysaan Dimanche Fakar Joma jega adresse Senghor un million tege maaga loolu de la wax en séeréer mooy dimanche bii di ñëw arène adresse Senghor million lañ fa tegal mbëri kon loolu leer na loolu leer na Moussa Faye ngóor ñaax Moussa jël na ko attention asafurla ngóor a ko jël Ngor lan la koy def da koy patam patame xamante nañ xamante nañ yàgg nañoo contact équipe nationale ku nekk xam nga sa moroom lu muy saf fii naxante lay nekk rek ku nekk waaxu sa moroom nax ko jëm ko jaagaaw dóor ko daan ko déggal manaan naan dóor ko man mi fan laa ne ndeysaan c'est ça la lutte quelle belle finale Ngor Niakh Moussa Faye Moussa à gauche moo gën a gàtt ngoor ñaax à moo xaw a gën a njool poids yi nag danoo ëppante kii 76 la kii 66 raw gaadu baa ngoog jàppante nan waa fii ci kan laa war a teg lii bu doon pari fut la ci kan laa war a teg ma xool ma xool bu doon baa Djili ndeysaan daa xamee code yi Baye Djili daa xamee code yi xam na fan la war a teg ak kañ la war a teg. bilaay naar bi yal na nu yàlla musal ci moom ni muy def sun gone yi ëpp na keroog wallaahi dama dem ci benn rango attention Moussa Ngor ñaax sori na la wër na la ndombo hey Ngor da ngay rëcc wala Ngor da ngay rëcc wala Moussa Faye Ngor ñaax Moussa fay Ngor ñaax eh, eh. quelle belle finale Ngor ñaax waaxu ko daan na ko nii rek doo ko mën da koy nax da koy nax rek ci bëreem nga daan ko. arbitre woowaat na leen quelle belle diggante Gandia Fama ak Abou Assef. quelle belle finale Abou Assef Gandia li amoon sànq bu amaate soit avertissement dana am kenn ki wala kooku daanu. ndeysaan Abou Assef Gandia Fama ndeysaan gànja faama abou asef abou asef mu ngay liggéeyati loo bëgg dalay rey gànja faama abou asef lim lay lim lay foofu mu la baaxul parce que loolu maninam la dalay yóbbu ci suuf diri la wër na la ndombo daf lay daan gànja faama abou asef daf lay daan sori na gànja faama abou asef daf lay nax loolu maninam la bul ko nangu bul ko nangu loolu maninam la wër na la ndombo c'est terminé li penalty la ci làmb mbër mu ko am ñàkk ko booyee ba beril bay bayil ba xaw ndeysaan sama papa ja père booy jinne moo dan wax loolu yal na ko yàlla yërëm moo doon wax ne buñ la jekkoo bayil ba ganja faama abou asef eh! ganja faama taxaw day bind recours day bind recours kay day bind recours day bind recours eh day bind recours day bind recours waaw ils ne sont pas d'accord ils ne sont pas d'accord day bind de loolu la wax Gandia Fama en tout cas c'est une tentative risquée loolu kele la boo xam ne balaa nga koo def nay wër nay wër plek nga doog koo def xaaral ma xool image. final poids lourd ginnaaw bi ñu jógee ci final poids léger bi Gandia Fama ak Abou Assef dafa amoon litige Abou Assef daal di bind jébbal ko waa table technique bi ñu xool ko gis ne Gandia Fama dafa daanu selon seen jugement Abou Assef daal di li nga xamante ni moom mooy ndamli lan la lan la ndeysaan gañ seen won na ko dooleem daan na ko c'est terminé c'est terminé hey